dal leen ak jàmm mbokki internet bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal euh, comme ni ñu amee habitude di ci ànd ak yéen rek saa su nekk lépp loo xamante ni actualité la dañuy ñëw suñu plateau waxtaane ko waaye nag dañ koy waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ay expert jamono ji nag gis nañ ni wàllum agression bari na lool ci réew mi démb rek ñoo ngi dégg ne ca diwaanu campinal benn waaye bu ñu duppee Ibrahima dafa doon jéem a fàtt bakkanam xamuñu nag lan moo waral mu fàtt bakkanam ba xam longue détention bi ñu dala kaas la ba xam condition la am déet looloo waral ñu dem jëli ins ins moom ku nekk xam na ko tey jii mu nekk ab ancien détenu boo xamante ni dund na lu nekk ci jël bi comme ni ñuy faral di ko waxee moom moo fa seenee toog tey waxal ñu ci wàllum agression yi waaye tamit li nga xamante ni moom moo nekk ci wiir kaso yi ins dalal naa la. waaye ñu ngi lay fay ñu leen di char di leen màggal Sénégal ñu ngi sa ma njëkk a wax sama bopp maa ngi tudd Ins rapport rappeur maa ngi ñëw pour réinsérer booy ci réinsertion sociale tey am expérience moo tax ñu ñëw di dund loolu boo nga ko léegi léegi ci cas agression yi dafa bëri temps yi mm-hmm. te li kay waral waxoon naa ko avant balaa benn émission moo dafa def ak Omar Ndiaye la affaire bi li tax mu bëri agression bu bëri mooy taux de chômage ñàkk liggéey ñàkk liggéey bu bëree ci jeunes yi booy bu ci amul ngor rek mën nga jaay sa ngor looloo waral tey booy yenn booy nga xam ne amuñu ngor dañuy dem jaay seen ngor tare seen laaj si tali bi yenn booy nag duñ ci bañ dara ñenn ñi seen condition de vie yi nekk seen kër amuñu li ñuy jox seen yaay seen pap moo tax ñuy dem tare seen laaj si tali bi mais nag comme ni ñuy wax rek ku si nekk tam li ngay dund da ngay mën a assumer ses responsabilités ñun bu ñu koy dund temps booy dañ ko doon def comme ni ko booy defee des fois ñu génn dem joobi des fois nga dem joobi des fois mu neex des fois nga dem joobi mu cóol si ñaata moroom lañu jàpp dooleem ba ñu dee cas bi rek wane na ko quoi cas agression bi passé booy booy bi vidéo bi day wane ni booy bi dafa dugg si gaale bi di yóbbu escritoire am beneen booy bi ñëw dugg si kër gi dóor ko misil mu ko dóoree beneen deuxième personne bi daw si ñëw génnee jaasi ndax booy loolu la ñuy fooye te li ñuy fooye noonu jaasi yooyu ñuy fooye nii lay mujjee longue peine gars yi tëj la jeel nga mujjee prévention ne camp pénal nekk jeune war a war a avancer war a dimbali sa yaay ñu tëj la longue peine après na ngay mujjee am ñuy demee boo amul ngor na ngay sa bopp. mais tey jii koo ci téye rek am na argument yu muy joxe ne loolu moo ko poussé mu dugg ci agression yow ins lan moo la dugaloon ci agression ba nga am ay détention yu yàgg ci kaso bi. li ñu si dugal mooy da nga nekk booy bëgg am nekk say nawle ñu naan kii am xaalis kii kii yaa di ko dimbali kii papa ma may moyen yow nga nekk benn booy sa papa amul moyen sa yaay amul moyen. fa nga mujjee génn jéem a liggéeyal sa bopp léegi pour nga mu liggéeyal sa bopp lii ngay def foo koy jàppee quoi life bi des fois nga dem agressé ñëw mu neex des fois nga dem mu cool yaa ngi nii lay demee mooy intentionnellement bi ñu demee di agressé ñoom dañ dem pour am luñ si góobee gar ko ndax bu ñu demee dañuy gaañe mbaa ñu gaañ mhm. noonu lay demee léegi nag yow da ngay dépendre sa bopp xam nga dangay ngay moo tax boo demee mhm. arme nga yóbbaale à loi du kii kii bu ñu xawee résister jamono sampal leen te du yoon. Mm-hmm. lii wax naa ko booy foog ñu gëm seen bopp foog booy xam ne ne gars yi laaj bi liggéey moo lay fay. Mm-hmm. nga dem business dem nekk ci leneen mais pas taxaw ci tali bi di génnee jaasi. si déjà yow ñaata yoon euh, lañ la jàpp ci agression. man agression agression jàpp nañu ma si bi muy mujjee daanu 2008 laa daanu braquage agression ñaata lañ ma si jàpp jàpp ma sama premier agression ma agressé dañ ma jàpp dóor ma dóor yu métti. kalaate ma kalaate yoo xam ne man mii sax mënuma comprendre te ñi ma àndaloon dañoo mujjee daw bàyyi ma fa gars yi escanté ma sama tante moom ma jël si sax xam nga ak suñu waa kër ñoom mu ñëw jël si sama tante fa nekk di jooy fekk dañ leen xam sax ñu leen xamul woon kon heure bii maa ngi jël xam nga mhm. jàpp leen sama tante wax wax wax wax wax ba gars yi xaw ma dool ma yërmande mhm. xam nga mais gars yi maanaam maanaam bu ñu la waxee dóor yi ñu lay dóor ak tànc yi ñu lay tànc ërtal yi ñu lay ërtal ah mais loolu noonu mën na yàq sa am na boo yoo xam ne seen carrière dañ ko day yàqu ci loolu ndax da ngay gis koo xam ne dañ ko defal dañ ko jël ñu jàppale comme comme quoi agresseur nga moom ñu jëlal ko agresseur mos ko agressé bu fekkee ci ful boobu noonu kooku du la mooy. da lay dóor escanté la escanté yu métti léegi foofu balaa booy dafay yegg ah état bi pourquoi mënul woo gars yi mel ni ñun. ñuy dugg di réinsérer booy di leen nandal ndax yenn booy yu bëri barki. léegi foofu day neex day neex moo tax ñu siy dugg. léegi foofu mais bu ñu xamoon ne affaire day métti. Uh-huh. kon duñ ko def bu ñu gisee seen benn moroom daggale dañuy ruux. foofu dinañ fa ñëwaat après ci kanam tuuti bu ñu soree mais dañuy ñëw yow mi nga xamante ni yaa ko dund nga wax li nga dund d'abord euh, ginnaaw ba nga agressé ba dugg euh, ci biir jeel bi lan lu métti nga fa dund loo mën a expliquer. wax bëri na ci may dund ci jeel lu métti de un pour pour te dire boo jógee boo jógee bu ñu jàppee. Uh-huh. ngay prévention korok dañ lay prévention korok am na ñox xam ñuy prévention korok bu ñu jàppee tëj la nga dégg pen da ngay dawal quelque temps cent mètres après ñu sànni la camp pénal boo demee nag diggante jeel bi nag si jeel bi nag falal falal lépp grave ndax jé kaso boo xam ne dañuy jàpp dealer violeur agresseur meurtrier meurtrier cambrioleur escroc ñoom ñëpp ñu bool leen bool leen ci benn néeg léegi bu ñu leen boolee ci benn néeg boobu man temps pour pour te damay wax quoi man may nekk booy ci li tax ma gënoon sax gën a garaaw mooy bu ñu leen boolee yéen ñëpp ci benn néeg ñoom ñëpp expérience rek mu am benn boy bu ndaw boo xam ne moom fee agression moo fi indi amagul expérience ñooñu noonu lañ koy boole ñu ñooy nekk si booy bi di ko nettali ay fee seeni fee ku nekk di nettali seen fee man lii laa def man mooy dóor sama 2 millions mooy dóor sama 3 millions 5 millions après booy bu déggee loolu automatiquement loolu mooy nekk ci bopp mooy fexe moom di génn ba bokk ci gaa yi noonu ba am palmarès dóor ay millions ay business mais millions yooyu noonu ngay jéem a dóor yow comme ngay a njëkk xalaat bu leen nii nga mais booy xalaatuñu foog ñu génn dóor ay million après bu ñu ñëwee ñu jàpp mu mu préventionné korok si lay doo xam ne ni moom fee yi muy def te boo nekkee kaso tam kaso mën na la defar mën na la yàq. Mhm. ndax ñun kaso moo ñu yàqoon kaso moo ñu defaraat. Mhm. ndax kaso ça dépend si yow rek nga nekk kaso nga def fee nga assumer say fee xam ne lii maa ko def erreur la ah nga jaare fa bàyyi mais mun nga def jeel gis ñoo xam ne ni ay defkat lañ di gis ne entre ne di ceene di taxaw pare pour génnaat defaat li ñu doon def ndax fee affaire dafa métti moo waral benn booy bu ñu leen tëjee dañuy siisu dañuy di tëj yu long donc daal boo dee ndaw bu ci soog a dugg bu nga xamante ne ñoo la ëpp tey jii ñoo lay jàngal boo génnee gën a garaaw ñoo lay yóbbu ngay entraîné mm. di la def génn nekk élément mm. gën a garaaw mm. moo tax booy bu ñuy génnee dañuy génne ranking boobu la ñuy demee ndax kaso bi dafa métti kon yow sa premier dugg sa sarik génn sarik ndax jeel bi moo métti nee naa la condition jël bi ni ñuy tëddee paquetage yi gaan doo am sa place foo toog foo foo toog am na ñoo taxaw ba fajar pourquoi ñu jàpp ni boo duggee jël rek loolu correction lay doon ci yow ba boo génnee da ngay changé doo hmm. duggati ci yenn détails léegi nag fa laa xaw dañu ne maison maison d'arrêt de correction pour les détenus léegi nag maison d'arrêt boobu noonu maanaam selon condition de vie yi fa nekk mënul hmm. defar kenn est-ce que y a des fois hmm. cent condition de vie yi fa nekk mënul defar kenn ndax mënoo boole gaayen mu li ma la wax dealer violeur ñu ñëw boole leen ci benn benn benn benn benn néeg ah ñoom ñuy toog di waxtaan di waxtaan di kii di gën a xamante loolu day gën a garaaw yaa ngi dégg day tax booy bu ñu màggee dañuy gën a garaaw ndax booy bu ñu màggee million mooy nekk seen bopp gars yi da di entraîné loo ba ñu ceene bu ñu génnee dañuy nekk ay éléments si terrain mm-hmm. yaa ngi man si laa jaar ko jaar nekk élément si terrain bi daanu daanuwaat sama dernier daanu bi ma daanu cinq bu affaire braquage man loolu noonu sa tey moo ma defar ma dem fekk fa ay kilifa ñoo xam ne tey dañoo dund lu nekk quoi. Mm-hmm. ay Ino xool ma ay Alex. Ifra Ba dund naa Alex ci kaso bi Alex ci kaso bi dund naa Ifra Ba mm-hmm. ci kaso bi. dund naa Paalaay euh, euh, ci kaso bi dund naa euh, kii nu mu tudd Latri Mbaye ci bi dund naa kii Pam Ndiaye Pam Ndiaye Tëngéej ci kaso bi ñu ma dundoo ci kaso bëri na mën naa lim ay nante nante. tey yow lan nga xamoon ci ci Alex Momé ba nga bokk mu kaso bi parce que ñu ci bari nag. wax ju lu bari bari dégg rek la ñu am. waaw gars yi dañuy dégg rek comme ni si maa ngi koy mm, waaw maa ngi koy bigab di ko di ko ndamoo. Mm-hmm. Alex moom problème braquage la woon affaire bi moom ñoom ino bu mu paree dafa ñëw jé si jeel bi ak ñu dem affaire évasion mu génn mm-hmm. def évasion bi bu ñu defee évasion moom dañ ko dóor bal. bu ñu ko dóoree bal bal jël tànk bi tabax ko ba pare dëngal ko. lépp pour wan rek moom warul daw pour rek bañ bañ suba bu ñu bëggaatee def benn benn évasion mu bañ daw mais Samba si dafa mujjee changé nekk gaayan bu cool si jeel bi ñoo nekkoon chaque jour ñooy ceenee nekk suñu grand nekk grand bu baax xam nga diñu conseillé booy bu leen génnee booy gëm leen leneen jël leen beneen yoon lii du yaa tey booy loolu la ñu war jël leen beneen yoon diiru live. moom moo leen daan conseillé loolu. moo ñu doon conseillé tey tey loolu ñuy conseillé tey mooy njëriñ nii. Mhm. xam nga bu ma génnee itam gars yi seetaan nañu ma nday Sali Dieng itam jàppale na ma quoi. Mhm. sama ministre bi ku ñaax i ñaan ju baax jigéen ju am diine woo na ma jàppale ma ma commencé di job mu boole ma sécurité ma commencé di job mhm. di pousse tey si boo gisee tey soxla ma alal kenn tey maire moo tax quoi. na ma alal kenn mais tey nii am na samay morom yu génn ba pare nekkaat si. génn ne bàyyi nañ taxaw fépp ba pare gars yi nekkaat si xam nga loolu lu koy waral mooy li mu la wax rek gis nga nit ki bu seeree boppam waa nit yi état bi ñoo ñu war di jàppale ñu jege état bi ñu war di jàppale ndax bu gars yi ñun bu ñuy jàppaloo après nii lay demee ah booy dañuy gën di def ndax ñun la ñu war a jàppale ñuy wax ak booy dina xamal nan nan la ñu war a dundu pour génn ci li ñoom laaf bi ñuy dund ndax laaf du agressé rek. Mhm. fii nikki liggéey bëri na quoi nit ki damal jàngi cinq ans benn métier. mais instant nga baal ma ah. yow tey am nga chance su jugee ci kaso bi génn defaruwaat. ba tey jii bokk nga ci ñi nga xamante ni soxlawu alalu jàmbur mais am na ñoo xamante ni bu ñu duggee génn dafa mel dañuy wuti xam-xam bu ñu génnee moo waaw léegi nag fa waxee nee naa la condition de jeel bi la niñ di dundee tax booy bu demee fee bu baaxoon gars dañ koy yàq wax na la ngaax ba leen koy wax si jeel bi si jeel bi la banditisme gën a pire si man dama la waxantu moo quoi man si jeel bi dama fa dund ay yoo xam ne man tey mun ma ko sax taxaw di nettali quoi gis ay banditisme fa la gën a pire ay gars yoo xam ne ñu nekk si jeel bi di jaay bon ay gars yoo xam ne ñu nekk si jël di def ay gaa yoo xam ne ñu nekk si jël def crime xam nga la ñooñ noonu kooku noonu na ko nan la ko nit mën a réinsérer koo xam dafa dem ba si jël bi di jaay bon kooku noonu moom kooku pour mu génn réinsérer boppam du yomb yaa ngi mais tey ñun ñëpp yooyu dañ fa jaar mais dañoo ñëw am gëm-gëm xam ne lii nii dañ war a bàyyi live boobu nekk ko benn live boo xam ne ne gars yi live bu yàgg la carrière bu gàtt la moo dëkk gars di dem di sàcc di jël alal di jël ay di jël ay àq benn dina jot day cóol te bu coolee dañ ngay jàpp te bu ñu jàppee billaay lu métti moo lay dal nga dem prévention nag korok après noonu ngay mujjee ñu tëj la yenn longue peine mm-hmm. nga mujjee siisu mujjee gaan mooy loolu mm-hmm. ay mutinerie ngay créé évasion si loolu rek ngay doxaan ah ndax dañuy tëj laa fan jeel xale bu ndaw nga nga tàmm bëlaw tàmm ay gel tàmm jëm soor lii jégi-jégi rek ñu ne longue peine mm-hmm. doo bu amul maîtrise doo ko mën doo ko mën a accepté looloo a gars yi di dem après di xaru mais tey comme ni nga ko waxee dugg nga ci euh, kaso bi te sante fee ku ci mel ni Alex yàlla def tey ji lépp lu mu duggoon mu réccu ko ba mu lay euh, yedd pour nga bàyyi loolee